ñu jógee ci bëre simple booy fay bëgg a waxtaan bëre dóor tuuti ñu ñëw ci fay bëre dóor ñett at mu ngi nii de wala ñaari at yoo xam ne bëre woo de. waaw trois ans bëre wu ñu. trois ans ñett at. waaw ne du suñu coobare. xam nga làmb ji léegi liñ xewal. loolu dundalul làmb. Ah, xam nga maanaam ñu yuuxoo la sa goo xamante ni ku la jox nga delloo avance am loolu dundalul làmb. làmb bu nekkee ne yow da nga ne morom làmb nga bëri moo la yëkkati kun la jox da nga war a bëri moom làmb ji mooy tonte bi moo ko xaw a yàqu quoi waaw nañ ko teg ci yoon ñun ñëpp ay xale lañ nañ dalante bëri ñun suñu biir waaw ku ci daan xam ne daan na ku ñàkk xam ne ñàkk nga fekk defuñu loolu loolu làmb di jëm kanam affaire bi dañu war di bëri ñun suñu biir amul sa amul pôle na ñëpp di bëree daje suñu biir man de man boo fay làmb Moussa yàqoo si man làmb mu musul yàqoo ci man de boo. yaakaar nga ni mbër yi ci biir bëri dóor bi dañ lay daw fay gars yi ragaluñ la de. gaa yi am na ci ñoo xam ne os nañ bëri nañ doole dama ragal est-ce que du da teggi rek di xool booy yi gën a nooy te booy yi nooy fu ñu ne leen booy fay ak nii ñu daw. waaye gis nga xam nga man man sax de gaa yi ñëw ma gën a ñeme de. waaw man mënoo xam nga tapet laa loolu moom tapet laa quoi. mais mais nañ ma jël ñu bëre rek. nañ ma jël rek ñu bëre man moom wax dëgg fa yàlla yaakaar naa ne moom lu yomb moom ku xam booy fay bu ma juddoo ba tey lu su ma cee dox waaw waaw ndax ko ma xam-xam fi ma cosaanoo wax dëgg fa yàlla waaw sama sama àdduna entraînement arrière sax nii nii nii soo arrière ma koy def loo waaye xaw ma loolu xaw ma tànk ci ginnaaw soo ànd ak ma dute naa ndax dina baax am du baax man la toogal sa kër bul ma topp waaw. noonu ngay dundee parce que lépp looy dugg da ci ciy séentu ndam waaye booy fay ñaata saison saison bi ñaata bëre dóor ñaata combat nga ci am ak ñaata nombre de am ñaata défaite am. waaw euh, def naa onze combats. waaw onze combats yi bëri naa ci dumb deux fois daan naa ko mu daan ma. ma ñàkk ci libidoor waaw waaw ma ñàkk ci libidoor. ñàkk naa komba ci njaaxum ñàkk combat ci Ronaldo. Mm-hmm. ak euh, kan ak yaakaar naa ak njaaxum la quatre combats daal ñàkk naa ko ci. waaw quatre défaites am naa ko mais waaw cinq mais. benn affaire daf ci am mooy loolu lee booba booy fay booba booy fay beneen booy fay la. looloo ma jaaxal waaw booba beneen la. bi ngay bi ngay parce que booy xool booy fay boobu ñu boobu doon ñàkk. boobaak léegi ñaari at la xaw ma ñetti at xaw ma ñeenti at ci diggante bi soo amee gis-gis dëgg dëgg dëgg bi nga xam ne ki nga xam ne dañ ko doon nax di ko ñàkkloo ak kii toog léegi wute na torop ma am yaakaar ne fi mu ne nii moom waaw maa ngi ànd ak suma ay mbokk rek. waaw maa ngi ànd ak waat jaxaw waa Mbelgoor waat Fatick Nduuk gi nga xamante ne su mbaam foo la dëkk ak waa Saalum kër Mbangu Jaaw maa ngi ànd ak ñoom daar kër Momar Xorejet Njoobeen Taalen waa Kaolack gi ah Sibassor Ndeene maa ngi ànd ak gaay yëpp waaw maa ngi ànd ak waa Ñoojoor Marlooj Jifir ak sama mbokku séeréer sama mbokku Saalum Saalum yi ak sama mbokku tukulóor yi ndax booy xëy dafa bëri maa ngi ànd ñoom ñoom ñëpp ñuy wàcc ak waa ginnaaw raay nga xam ne fa la sama base nekk waa unité 4 gii ma ne waaw waaw ñu ngi waaj ñun lépp di déglu waaw instant bi daal ku ñu ëpp dama lay ñaan ngir yàlla jël sama làmb damaa bëgg nga wax ma ci làmb ji ñan nga bëgg kan nga bëgg a bëreel ñi ma bëgg a bëreel si làmb ñoo xamante ni jàpp nga ni ñii ay combat potentiel la ak Boy Faye nga ñii bëgg naa bëre ñoom waaw waaw waaw gis nga gars yi ngi fii nii ba léegi bëre bëgg naa Gris 2 jàngoro yëpp dañoo dajaloo nga jël Siteu Siteu du wër yow Gris <laughs> kooku daa am ci lu mu jógee de rek rek ko daan de. waaw bu ñëwee delluwaat foofu rek moom laa bëgg a bëreel. Gris 2 laa bëgg a bëreel wala ñu jox ma Elton. waaw. laa bëgg a <laughs> mais booy fay yow fi ko teg diis na de. tey ngaa làmb fu gën a nooy foofu. ñaar ñooñu ñëpp diis nañ de Gris diis na. Elton Diis biir na Cheikh Ahmadou Kara Mbacké loolee ni seen avance bi ñëwoon léegi gars yi réeree ko def ci li ñu ci war a def dem suñu yoon nañ ma jox ñooñu yu bëre man fi mu ne nii man bugguma fi benn paa bëreewu ma fekk benn mag mag ñëpp nañ toogi nee bëreewu ma ci kenn. kon ci yaakaar daa bàyyi bëre ak yow man bëreewu ma fekk benn mag man xale laa. nekk ma fi di làmb lu nooy. sama làmb li tax mu yàgg mooy waruma lu nooy moo doon wër lu nooy dinaa wut foo xamante ni dama lay fël nga wàcc tali bi rek ma jox ubbeeku. làmb ju métti laa bëgg lamb ji na métti lamb ji métti laa bugg a bëree. Mhm. bu ma bëree lamb bu nooy. waaw Gris 2 laa soxla wala Elton. waa kan na ñu bëree. wala kan Forza ñu bëree. waa mais man dama ne la lu métti lu yomb. bëgg ma fay yow lan moo xew lan moo xew dugg ci bëre simple yi jël benn kii rek yaakaar ni Gris 2 Forza mun nga leen a téye loxo bi day dox. Gris nee na bu bàyyiwul xeex bi kenn bu ko jël ah Forza day dóor de. ah waa baax na man. booy verre mën laa romb nii moom sax nga ne tapet la waaye bu nu tëjee barrière bi nii ba ñu wàcc wallaahi ama lenn lu may ragal jege diit ma ragaluma loolu wallaahi ragaluma ko ñoom ñu ñëpp ñu ma la wax noonu ku ma ci woo tey tey tey tey tey ma bëreeg yow man nee naa la fi mu ne nii lu métti laay wër man maa bëreewul combat bu yomb bu dee daa nar a yomb nañ ma ba ci simple ma ma bëree bëree dóor man bëree woo fekk benn paa pare ma sax pour bëreeg paa yi na métti rek promoteur yi lay contacter pour bëre dóor waaw ñu ngi <laughs> am na sax ñoo fi doon topp di ma laaj waaye ñoom bu ñu leen woowee fi dañoo delloo avance ah. dañoo ma ko wax. ah, ah, ah mais wax daa daa am contrat bu mu jël fi mu ne nii te man la moytu jël loolu fi mu ne nii comme ni contrat du ma ci wax. ah waaw comme dafa nekk ci contrat de moom règlement bi. dafa nekk ci contrat moom amu pour wax ko dara. Mm. waaw fi mu daal li ma la wax moo ci ne. combat bu métti laay bëre bëre ma fi benn combat bu guus boo xamante ne dañ ñaan combat bi guus na gaa yoo xamante ne nii da ngay mooy loolu gaa yi nañ bàyyi lu nooy li nag te ñëw ñu dalante affaire bi dalante bi da ngay ñëw ñun xale ñu dalante suñu biir lamb ji neex toj dañoo war a ñëw booy yi nga xam ne dañoo ñëw fitta amul mbëru taraade sorel amul mbëru dóor amul mbëru dara nañ ñu jaxase ñun ñëpp ñu bëre suñu biir ñu xam kan mooy kan ñu xam kan mooy kan non nañ xam kan mooy kan fi mu ne nii nañ boole ponkal yi mbëru taraade sorel yeeg mbëru dóor yeeg fii mbëru dóor ak mbëru taraade sorel amul nañ jaxase gars yi ñu xam kan mooy kan nañu boole ñun ñëpp xam nga man li ma xalaat buñ jëloon caaka fay Cheikh Tidiane ñaa booy fay koréas jël jël jël jël lu euh, tuddati franc. waaw obali. waaw ñooñu nga boole leen ci benn tournoi rek ñu tëgg ko def bëre dóor ku dóor wàcc sa morom jël. <laughs> wóor na yàlla ak yeneen bi déggoo la. waaw yow ñun ñun sëñ bi ñun ragaluñ loolu. fi mu ne déggoo li ma la wax lu métti rek. lu yomb yi amu ci de nan nu boole bu leen neexee sax grand contre petit bu ñu wax nañ coppati ci ñi ñoo fi mën ci dóor bi coppati ñi mën ci simple bi. ñu boole ñu kon loxo dem gémmiñ wallaay kon loxo dem gémmiñ fii làmb ji jaay dañuy jàpp di guusal bagage yi mu nooy nga am benn combat ñëw mooy loolu noonu Adja Saval beeg jumbo bi jàpp la ngay xogali ko yooyu amu ci gaa yi dañu boole ñu bëre ñu bàyyi tegg beeg affaire yi ñuy def nii ñëw ñu bëre eh, yooyu amu ci de. yee. mel ni am na loo yëg nag ñu la parce que diggante bu nga jugee maragook léegi gis naa nga yokk état boo xamante ni vraiment liggéey nga quoi te keroog bi nga def ci làmb ji ku la gis xam ni booy fay liggéey na. non mooy li ma la wax rek damay dégg sama papa Maxime Bergane naan damaa liggéey damaa liggéey wax ju yàqulu boo sumee ko ñu xam liggéey nga am liggéeyoo te làmb ji mi ngi fi ñoo ngi dox kuy antari ne kuy caaxaan buñ doxalee ba ci kanam danga xam caaxaankat yi dinañ droité toog ne liggéeykat yi ne ca kaw. loolu moo ci nekk wax ji jarul muy bëri mooy li ma la wax rek gaa yi nañu boole ñi ñu ne ñoo fi mën ñu dalante nañ dalante suñu biir gaa yi nañu bàyyi làmb ji fi mu ne nii def mi ngi koy yàq nañ boole xale yu ndaw yi nga xamante ne dañoo fere ñu dalante dalante yu métti rëjjënd ay korose ba mu neex ba ñu nekk fii di teggi di wut fu nooy di wut fooy jaar ak yooyu paa yi ñuy bàyyi ak gaa yi di waaj a dee ni ñu jël leen di leen dóor ñuy sukk ñuy dem seen yoon nañ ñëw ñu bëri ñu nëbb suñu biir affaire foofu la. yeah booy fay nga jóge écurie ginnaaw raay wala nga jugee ginnaaw raay dëkk parcelle ban écurie nga nekk. man maa ngi ginnaaw raay ba léegi maa ngi ngir bàcceeraas. Mm-hmm. relation nga am ak mbëru parcelle yi. bu wax mbëru parcelle yi neel rek parce que doo dooraat su waaw dooraat ak parce que ñoo fi nekk mais tamit nag doomu aadama ku ne am nga say nitu bopp. Mm-hmm. doo dooraat sama copain moo fi nekk Garga sama grand la suma lépp la di dund ak man teraanga joo xamante ne nii du lu may wax moom xam na man xam naa bu ma nekkul fii sax voyage day ñëw gis suma waajur wu jigéen loo xamante ne ndax daan nga nekk ak nit te du def loolu mu ñëw di ko nemmeeku wallaahi di def lu rafet a rafet lu ma xam wax ma ñuy ànd ma koy defal rafet noonu la ñuy doxee daal ci àdduna maag moom muy grand bu ma yéene jàmm ma koy ñaanal fépp fu mu teg bëtam yal na ko fa suñu borom yeggale ci barke Seydina Muhammad muy grand bu baax mën a ma fayam borom baax la daf may conseil chaque jour kon man mënu ma kaa fay affaire bi loolu moo si nekku quoi waaw gars yi nañ ñëw rek. kon yow bu la làmb boolee Garga Mbossé du ngeen géew. non Garga Mbossé du ma bëre ak moom Garga Mbossé moom kooku suma lépp la suma lépp la dafa ëmb dafa jeexal lépp dafa tëj lépp mais su par Garga Mbossé koo fi bàyyi ci mbëru parcelles yi ku la jox mu jël. laa ilaha illallah muhammadu rasulullah déggoo li ma la biir kër la bu ca ma ko man yooyu new ma ci damay wut xaalis ñu wut xaalis am sa kër bàyyi ngay yóbbu. kon ikiri dóor dóoraat Garga Mbossé fa dul waaye kuñ la jox ci ikiri ba nga jël. ma la wax booy fay laa la. dama laa wax ne la booy fay en attendant. Hmm. booy fay mi ngi fii nii toog. kuñ ko seet si jox ko làmb ji jaadu bu bëreeg yow ñi ma dul bëreel xam nañu man xam naa am na ñoo xamante ne bu leen promoteur wooroon xam na ne man ak ñoom du ñu bëree xam nañ ko mais su soo loolu am na ñoo xamante ne ku leen ëpp ñu sëgg amul sama dem da ñëw loolu koy jeexal na wax amul leneen yee. fay léegi waxtu bi li ñu amoon ci waxtu jot na la lan nga buggoon wax te laajuma na ko te nga bëggoon cee wax. ah waaw len la rek mooy. kontaan nañu daal bëgg nañu ci gaa yi baax a baax tamit waaw dafa am ñoo xamante ne nii dañuy jàppale booy Faye faa ma leen di bëggee lu bëree bëri waaw ku ci mel ni suma magu bopp bi nga xamante ne moom moom lépp moo ko def si Ibrahima Niang ak suma mag Aliou Sakho ngi taaw yaay sama taaw yaay dama koy bëggee di ko siyaar bu baax a baax di kontaan ci moom ay Babacar Esaafu Boy Faye ay Alaaji Sàll mii nii toog nga xamante ne mooy suma lépp ah, ay mbay sama booy bi toog ci ma kaay gars yëpp man mënu ma leen fay déenam mbooj si ba soor waaw sama waa ji Abdou Kaba Belgoor sama gaay yi man leen fay waa Kaolack yi Omar Omar mu booy fay bu Kaolack gaay yi mënu leen fay waa Fatick Mbuur ñi nga xam ne fa sama papa dëkk ah, waa Saalum kër Mbangu Jaaw ñoom sama maam fa la cosaanoo Njóobeen Taaleen Daaru kër Momar Xoreja waaw waa Pasigo amaa fay mboxu waaw maanaam Kaolack gépp gépp képp kuy jàppale booy fay waa Casamance waa Conke Sil gaay maa ngi di déggee waaw di teg ñu yóbbu ci sama lo sama loxo Gana Birigal gaa mooy loolu noonu Casamance gi maa la waa Bignona ah, waa Gunjira ñoom ñëpp maa leen it mooy loolu noonu maa leen siyaar leen bëggee bu baax a baax di kontaan ci gaa yi nga xam ne ñoo ngi ci ginnaaw Boy Faye di ko jàppale waa Zawal du du yande xam seen fa yéen ñëpp ñëpp maa leen di bëggee di wax naan leen jàpp leen rek waaw yoon wi gudd na bëri xaaxaam mais bu kenn xaddi na gaa yi jàpp te xam ne waa incha allah fi gaa yi yëpp yëgg yëpp dañ fay yëgg ci bari Seydina Mohamed. kon ren saison bi bëre dóor bi di nga bëre daal. waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax a baax a baax am nañ ci yaakaar Aliou Ba suma coach mi def jéego bu am solo Abdoulaye Ndiaye sama manager ñu ngi ciy def jéego bu am solo suma waa équipe yëpp maa ngi leen di bégee waaw sama gaa yi bu kaw bu ci suuf ñoom ñëpp maa ngeen leen di bégee di leen siyaar bu baax a baax di la bégee yow yow jàmbaar nga. sama booy nga maa la yar. mooy loolu noonu. waaw yow la kaa dóor. yow sa morom. yow li ma la woon kenn la kaa woon. <laughs> jaage jëf mbokk yi seetaan Wassare Lamb ndeysaan Alaaji Sall gi noonu sama waa jaage noonu Babacar kat jàll tukulóor borom maami ilimaani nga xam ne ndeysaan sama waay la sama xarit la sama lépp la Euh, ma ànd ceeg sama xarit ba sëñ Basiirou borom mbég méeg taar mi nga xamante ne macha allah fuñ ma gis gis ma ci wetam munul dem ma dem maa moom ñett dërëm la man maa ñaar dërëm bi moom mooy dërëm bi sëñ Bas borom mbég méeg taar bi mbokk yi ñu leen di jëfal bu baax a baax a baax ba ëllëg incha allah ci xew-xewu làmb ak beneen champion jaa ngeen jëf.